Fatima. boole wuñ ak dara wax. waaw tàccu leen lii. dama ne jom rek jom moo ko amul doo dem. tubaari kàlla macha allah dama ne ñàkk leen xam erreur la. les sama son leader ñàkk leen fréquenté erreur la ndax xam nga lu tax dañoo dañuy teel a xëy dugg dee wàcc am jom lool nangoo liggéey ànd ak ajaratu ngoone faal laal yoon faal ca ndee lii faal ca ndeela doomi buur nga boo jëfee mu man tuwaar kala aboo juddu aboo taar oh. ajaratu ngoone faal aboo juddu aboo taar nga ànd ñu riis ba tax na askanu Sénégal su mu nee salaamaaleykum rek ngeen ma maaleykum salaam xam leen DJ Gas Elher Lo ma la Vador moo nekkoon fii tey ma ñëwoon seeti sama yaayu am classe yi mama na nga def maa ngi nuyu waa Dakar ñëpp di ziar ñëpp man la maman Banel madame Ndaw ba tax na yaa booy ma gis tey ngeen organiser loo xamante ne lu rëy euh, les femmes Amazon leader ngeen organiser loo xamante pour jàppale euh, prisonniers yi euh, loolu kañ ngeen ko gis ak kan moo leen jox initiation boobu noonu ba ngeen dem ba di ko organiser. waa initiation bi nag kenn joxuñu ko suñu présidente ngoone Fall moom daal moo organiser chaque le huit bu nekk.

est ce que yéen pare ngeen pour pour continuer euh, li ngeen sumb nii tey bii mooy première édition est ce que pare ngeen pour continuer ko chaque année ngeen di organiser. loolu la ñu bëgg loolu la ñu bëgg chaque année ñu koy ñu koy continuer ndax bu ñu ko commencé ñëpp dañoo d'accord accord commencé indi don yi gis nga ni nga fumé don yi ñëpp indi don yi commencé ku ne japp ci ñi indi ay valise ñi indi ay saabu ku nekk indi ci dañu bëgg affaire bi continuer chaque année mu continuer ku ko dégg ñëw japp lañu ci pour mu gëna yaatu. ñu mën a dem ci hôpitaux yi mën a dem ci feneen ak feneen loolu la ñu bëgg daal mu ko ne chaque année ñu def bu gën a raw bi daal loolu la ñu bëgg di ko def. te man gis naa macha allah affaire bi réussir na ala dawme na euh, ñan ngeen di woo pour ñu ñëw jàpp si bis bi. ñun daal bis bi bàyyiwuñu kenn ñu ngi woo ñëpp ñu ngi woo président di woo madame Faye Sall di woo am yëpp di woo Aliou sàll di woo Aliou Sall maire de Guédiawaye Aliou Sall moom mooy suñu lépp Aliou Sall moom moo topp ci ginnaaw Amazone leader Amazone leader moom Aliou Sall rek moo topp moo ci lan ngay wax waa Dakar TV muy télé boo xamante ne bu xew si jamono télé boo xamante ne macha allah ñu ngi koy seetaan partout dans le monde Dakar TV euh, lan nga leen di wax ak lan ngay wax directeur Dakar TV. vraiment xanaa di leen ñaanal ñu yokk ba yëg ko vraiment parce que kontaan nañu ndax mën nañ leen woo ngeen gàntu wala dara mais gis naa lépp si ngoon ngeen ñëw jàppale ñu vraiment ñu leen ñaanal ngeen yokk yokk ba yëg ko ñuy def année année année chaque année

association bi ndimbal moo ko tax ak jàppalante. di jàppale ñan ngeen di jàppale. ñoo ngi def don pour détenu yi nekk camp pénal. nekk camp ngeen di jàppale bés bi kan ngay woo ki nga xamante ne vraiment bu ngeen ko woowe mu teew bu ngeen ko woowe mu wuy si leen kan ngeen di woo ki nga xamante ne chaque année mu jàpp si bés bi. ah dinañu woo suñu première dame madame Mariam Sall dinañu woo. Aminata Touré dinañu woo sama tanta euh, Aminata Mbengue Ndiaye dinañu woo sama tata Aïda Mbodj. acca ba tax na madame Diakhaté am kontaan si yow woote na.